ginnaaw baatu inna lillahi wa inna ilayhi rajihoona ah, ñuy ñaanal ki nga xam ne moo fi jógee muy sunu mag Pape ja yàlla xaare ko aljana aljana fi daw si ah, damay nuyu nag sama famille yëpp sama yaay sama papa samay frère leemu ñi nga xamante ni ñun ñëpp bokk nañ ak ñun naqar bi di nuyu aussi soxnaam bu baax di ko wax ni mu gën a muñ muy yaata ñang mu sëy pap sëy bu rafet moom ñu koy ñaanal yàlla mooy ko xolu muñ euh, di nuyu euh, monsieur le ministre Matar Ba di ko sant si déplacement bi di ko ñaanal yàlla fay ko yiw bi mu déplacé wu di nuyu monsieur le ministre Omar Youm collere Pape Diala bu wér moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla fay ko yiw di nuyu euh, monsieur le préfet Ndaw euh, di ko ñaanal moom it yàlla fay ko yiw di nuyu Fallou Silla monsieur le maire ku ne xam na ni moom it wëlëre Pape la ñu ngi koy ñaanal yàlla delloo ko yiw moom it président Alioune Sarr euh, yooyu ñu ngi lay gërëm bu baax di gërëm Mohamed Ndaw Tyson Ah, di ko ñaanal moom yàlla delloo ko yiw président mbay Diouf Dia moom it wëlëri Pape la moom it yàlla na ko yàlla delloo yiw di nuyu Cheikh Issa Sall sama xarit la sama wëlëri la ah ñi nga xam ne ñoo bokk mbir mi ñuy yëngatu muy làmb ak eh, Ousmane Gueye Pape Sylla Pape Sylla moom kenn la si ñun kenn la si Pape Pape tuddee na ko doom boo xam ni am na treize ans ren kon loolu wëllëre la di nuyu Matar bii aussi sama goro la ki nga xamante ni Matar Ndour ki topp si man mooy soxnaam moom it depuis boobu ba léegi euh, ñaxam énergie dooleem yëpp mu ngi ko si def. di ñëw sama mbokku mbër yi nga xam ñoom laa bokkal mbir mi ñu yëngatu muy métier yàlla nattuñu ñu koy def démb Yaxya Jóob Yékini ñëw na fii ah ñëw na Eumeu Sène ñëw na ah Gouye Gui ñëw na tey tafaatin mu ngi nii sama ginnaaw tey ñëw na Modou Lo dégg naa ne mu ngi soog a yegsi xaadim gajaga Mame Balla ah, kii di sama rakit di booba assurance mu ngi fi ñoom seex Niang ah wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ñu ngi fi kon ñu ngi leen di sant bu baax ñoom bu ñu teewee rek tey mu ngi nii sama ginnaaw euh, kon suñu teewee rek ma ne teewe nañ bëri yëpp di sant aussi communicateur traditionnel yi du ma lim ñëpp nag mais damay jël kàddu gi teg ko si loxo Bécaye Mbaye mu wasaare ko si ñëpp jeune reporter yëpp euh, di gëlëm population Mbour population Sénégal monde entier euh, tey nag lii ma tënk sax yaakaaru moom dinaa ko wax parce que ku nekk xam ne douleur bi ma am ah, ki ma ñàkk ki jóge si man tey yaakaaru moon sax dinaa tenir tey pour wax si moom wax si moom répétition la rek ndax sam papa mu ngi dund mais tey ñu bëri xamuñu ko Pape Diène lañ defe ni mooy sama papa te dañu wax ni képp koo xam ni seen taaw kër mu ngi dundu joxoo ko cër nga ni bu sama papa doon dund naa ko jox cër doo ko jox cër ah Pape nag mm, li ma siy wax ginnaaw li ñu dund man ak moom daf ma yar te ay nit bokk nañ ndey ak baay te déggoowuñu mais moom dañoo bokk ndey ak baay man ma nekk ñetteelu rakam yàlla def ñu bokk benn kër ba nga xamante ni tey lépp loo xamante ni ñu ngi koy wax si man ni ko lay communiquer comportement am yaram yëpp Pape Dia mooy sama idole si moom laa ko jële tey nag perte bu mag vide bu mag laa am mais dinaa def rek ay quelques témoignages si moom euh, Pape damay xool ay mbiram ba mu yàgg ma ni missionnaire la man après si laay soog a wéet soog a rendre compte ni mënu woon gudd fan parce que Pape. Euh, ku ku mu nuyu rek dalay tax si xolam dalay akolaat man defoon naa ni sax carte bi la ko la ko yemale mais monde bi yëpp ko wax mooy le pape bu ma nuyu li mu njëkk a def mooy dalay xëcc akolaat la taf la si dënam te loolu defe naa geste yu baax la euh, ma indi ay leeral nag pape yàlla dafa def loo xamante ni xaj na am na ñu ko xam am na ñu ko xamul mais deux yi ma génn dama dund tristesse dund loo xamante ni yaakaaratuma sama àdduna mën naa ko dund muy naqar ma woyee ko lu mat ay deux trois mois Pape dafa tawat ñu yóbbu ko hôpital Fann mu nekk fa feebar bi gën di avancé balama ma ñëw feebar bi sax dama leen di leeral si ñaari mbir euh, Pape même gëm la demandé gëm gëm gu wër. te nit bu fi nekkatul booy wax si moom na doon lu dëkk ah bi ko tey bi daanalee ñu dem fànn feebar bi reculé wul ñu évacué ko yóbbu ko France dinaa leeral loo xam ni tey mën na am dootuma ko waxati te archive lay doon te nañ ko téye bu ñu demee dañ ko defal bilan defal ko scanner yëpp. vingt cinq jours avant médecin bi woo ma ma ñëw mu ne ma kii mënatul dund vingt cinq jours billahi lazim imagine tey te li si gën a naqari mooy pape mi nga xamante nii moom lañ ko wax xamu ko te man ñu wax ma ko te man liñ ma wax gëm naa ko ma war a dund ak moom vingt cinq jours xam ne war xam naa ne kii daf may quitté lan moo gën a métti loolu hmm? euh, bi mu demee nga xamante ni euh, pour wax leen ni Pape jullit la jullit ak xam ba dem na ba tëdd si la l'hôpital mënatul julli mënatul jóg toog maa koy may ndox muy jàpp tëdd si kaw la l'hôpital di julli billaahi wallaahi tallaahi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 Gims et Dadju, le samedi décembre sur l'esplanade du Musée des Civilisations. Yeah, c'est le prince Dadge. Rendez-vous le décembre à l'esplanade du musée des civilisations pour un concert historique avec Voilà Oui, Voilà No Games. Les choses se passent en ensemble comme jamais. Venez nombreux, nombreuses, faire la fête. Oh, oh, oh.